askan bi ñu mu leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam bon ñun kuréelu ay organisation lañu yu dajaloo maanaam kuréel gi mi ngi dajale ACT Africa First Africa Jom Center Amnesty International ATAW RADDHO Mouvement Agir Jamra Mouvement Tekki Coalition na grand parti nitu dëgg valeur urgence panafricaniste LCIS collectif ñoo lànk SNP gilet rouge république des valeurs ginnaaw raay debout ak GFCV ñoo dajaloo woon tey pour revendiquer fan yi yëpp lu askan bi yëpp di mën a seede muy injustice bi ñuy dund saa su ne acharnement politique bu suñu ay naataangoo di daj saa su ne instrumentalisation des forces de l'ordre c'est-à-dire jaay doole bi bi ñu waa police ak gendarmerie du jaay doole ak euh, pour euh, xeex ak ak yelleefu citoyen sénégalais yi fi ñuy commencer mooy wax leen ni dafa doy ndax ñu ngi seetlu ni boobu ba léegi bëri na ay forme injustice yu ñuy subir ñun ñi ñëpp ndax gis nañ ni am na ñoo xam ne saa su nekk di luubal alalu askan bi moo leen tax a jóg te ñu ngi nii ci mbedd bi en liberté kenn jàppu leen kenn téyewu leen te seeni procès mujjul fenn ña nga xam ne trafic de passeport jàppee nañ leen ci ñu bokk ci état bi bokk ci euh, APR te mujjul fenn itam wax ji sax nag dañ koy mujj di ndëpp ndëppal saa su ne ngir mën a jàll ci leneen seetlu nañ fi tamit ña nga xam ne jàppee woon nañ leen phobie jàpp gi dañ koy dégg rek ndax bañ leen jàppee ba noppi ku ci nekk dafa delluwaat ci ay yitteem ña nga xam ne itam jàppee nañ leen ngir drogue ñu seetlu ni ñu ngi dund la nga xam ne mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey mooy su dee dangaa bokk ci ñoom nguur gi mën ngaa def lu la neex te dara du la ci fekk waaye su dee kat danga bokk ci partie civile bi ci société civile bi as tuut lu ndaw soo ko defee ñu toppee la ko te du mujj fen ñun en tant que citoyen yu mel noonu suñu bëggee taxaw ne dañ koy xeex pour loolu mën a arrêté pour mën a gën a dooleel suñu démocratie lu ñuy seetlu mooy ñun la ñuy jël nañu ràppe tëj ci kaso gi c'est le cas Guy Marius Sagna loolu lañ ko tëjee ndax seetlu nañ ni guykat boobu ba léegi pour nekkiinu citoyen yi gën a ne gën a gën a gën a gën a taw féexe maanaam loolu moo ko taxoon a jug injustice mosu koo seetaan lu métti askan bi métti na ko amaana sax moom li muy xeex moom ci jëm boppam amaana mënoon na koo matale ndax tey jii combat yi ci mujj mën nañ cee li mën nañ cee lim maanaam lutte contre la vie chère mooy ni dund bi méttee su dee moom ak moom dong la amaana mën naa faire face à loolu ndax yàlla suturaal na ko ba am na lu muy jëndee maanaam euh, denrée de première nécessité yi comme nuñ koy tu nuñ koy tuddee mais teewut gis ni kat population bi sonn nañu gis ni kat noot nañ leen moo waral mu jug génn ci mbedd bi xeex waaye loolu kat arrangé wul euh, état bi moo waraloon mu jàpp ko acte d'intimidation yi tamit seetlu nañ ko ci ñun ñi ñëpp saa yi ñu yëkkatee suñu kàddu ne kat dañ leen di xeexal li ñuy njëkk def mooy fexe ñoo fexeel loolu yëpp dañoo bëgg wax ni dafa doy te tamit ma besoin de manifestation mooy yoon may nañu pour ñun ñii di citoyen saa yi ñu gisee la nga xam ne neexuñu ci doxaliinu réew mi doxaliinu maanaam ñi ñuy diriger am nañu droit wu génn manifester xamal leen ni kat lii doxalin gii ñun gënaluñu te neexuñu suñu droit la le plus absolu waaye nag dañ koy teg ci yoon ci naka mooy yëgal préfet bi ni war nañoo marche yëgal lañ ci am mais pas moom itam mënul lu dul mobiliser force de l'ordre ne leen kat encadrer leen ñii ci seen marche ñii ci seen manifestation waaye dañoo seetlu ni dafa dem ba am pouvoir boo xam ne yoonu yoon sax mayu ko ko mooy lan interdire marche moment bi muy interdire marche pour la nga xam ne mooy ay raison par exemple de Covid ñoom waa état bi ñu ngi ci seeni politique ñu ngi meeting te kenn terewu leen ko ñu ngi meeting te kenn terewu leen ko te su fekkoon dañ koo def teg ko ci yoon sax mu tane mais nu leen neex lañ koy def defee donc loolu di justice kumba am ndey ak kumba amul ndey ñun loolu la ñuy dénoncer pour wax leen ni carrément dafa doy ça suffit boobu ba léegi ñu ngi dund lu ni mel saa ñu bëggee génn manifester ñu aaye ñu ko te suñuy naataangoo saa su nekk ñu jàpp tëj leen ci kaso gi te ñu yor ay njaboot ñoo ñu nekkal fi askan bi loolu yëpp a tax ñu ne tey nañu daje pour def déclaration boo xam ne dañ leen di xamal ni vendredi bii di ñëw la 15 dañuy am benn marche bu ñuy amal départ bi place de l'obélisque arrivée bi RTS di ci woo képp kuy population parce que lii xeexu ñëpp la xeexu ñëpp la di profiter waale de l'occasion pour mën a waxaale ci waa groupe des médias bi nga xam ne ñu ngi leen di fexeel boobu ba léegi sous prétexte que ñoom seeni taxe ak impôt matalewuñ ko loolu liñ ci kàddu yiñ ciy dolli mooy du ñoom kese ñoo matalul seen taxe ak impôt pour lan exonération bi ñu koy defal ña nga xam ne ñu ngi bokk ci nguur gi wala di leen soutenir et ku mel ni de médias nga xam ne nekku nekkalu fi lu dul askan bi ñu bëgg koo faagaagal ndax lan adversaire politique la ka nga xam ne mi ngi dimbale askan wi di créer ay emploi tandis que ñoom loolu ñoom la waroon sax amaana mais ñoom ñu ngi doon lijjante leneen mooy di favoriser ña nga xam ne bitim réew la ñu nekk au profit au détriment de ñi nga xam ne Sénégal la ñu nekk ñu war a jàppale ñi fi nekk seen doomi réew defuñu ko ba keneen di leen ko defal mais utuñu beneen moyen bu dul jéem leen a faagaagal loolu ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax bëri na ay points yoo xam ne abordé nañ ko te ñu war koo marché ci vendredi bi moo tax ñu ngi invité la société civile képp ka nga xam ne yaa ngi toog sa kër jàppal ni combat bi sa combat la parce que tey suñuy combattre lutte contre la vie yow yaa tey jii nii ñuy combat képp ka nga xam ne citoyen nga te jàpp nañu nit ci naka su dul alors que am na ña nga xam ne def nañu la nga xam ne moo gën a pire téeméeru junni yoon te leen jàppal bi sa combat donc ñu ngi ciy woo képp kuy sénégalais képp kuy africain pour ñu soutenir ñu ci combat boobu di leen jox daje rek vendredi bi incha allah à 15h à la place de l'obélisque ñu marche jëmalee ko RTS di ci invité képp koo xam ne ci société civile bi nga bokk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax